ñu ngi di jaajëfal mbokk internet ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci sans limite ak suñu plateforme digitale yëpp di leen dara jàmm ci seen i xibaar ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci eh, xibaar yi caricature prophète Mohammed alayhi salaatu wasalaam këru diine yi di Tiwaawoon Touba ak Medina indi nañ ci ay eh, tontu daal di koy jëmale rek ci ki nga xamante ne moom moo di eh, président Macron. coronavirus fi ci Sénégal tey ci àll àllarba bi ñax fukki fan ak juróom ñet ci weeru ko octobre Sénégal amati lu yemoo fukk benn cas yu ñeel wàllu coronavirus mu doon nag ñetti cas contact benn cas importé ak juróom-ñaari cas communautaire. Ngoné Ndour nekk euh, na ci euh, mandat mi nga xamante ne nii at wi ñu dëgmal lay euh, jeex lam ca wax rek moom mooy du présenté wu waat pour un ndax it nag elle est dégoûtée. gàmmu 2020 ci Medinatul Salaam camp yile di bu soxna Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune mu mel ni rek ku ci nekk déposé na ab demande d'autorisation ngir mën a célébrer gàmmu boobule ni ki tay rek le préfet di prononcé wu ndax oui ou non dina ren rek bàyyi ñu amal seen célébration mawlud mbokkente na débat yi gën a fës ñu ngi noonu ñu ñëw ak yéen nag tuju kekk xibaar yi daal di koy tàmbalee nag ak mbiri caricature euh, prophète de l'islam Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa euh, mu mel ni rek euh, yenn ci këru diine yi fii ci Sénégal di Tiwaawoon Touba Medina Baye ak famille omarienne yëkkati nañ ay tontu rek daal di koy jëmale ci ki nga xamante ne ni moom mooy président Macron. Tiwaawoon nag مصطفى سي amin la mu xam xamle rek mooy euh, koo xeebal kilifaam rek mu jaay la bakkanam mu mel ni rek ñoom dañoo jàpp ne ki nga xamante ne ni moom moo di président bu France Emmanuel Macron jamono jii dafa nekk ci euh, provocation euh, moo rek tax mu ne du renoncer benn yoon ci caricature yi nga xamante ne ni moom la ñuy defal prophète de l'islam lam ca tegaat nag ni ki démb ci fermeture bourde bi mooy rek kenn warul ngaañ ñi gëm-gëmu kenn te sax nag ndaw ñi ñoom ñoo war a jël rek relais bi ngir mën a rek porter li nga xamante xamante ne moom mooy euh, religion islam fa mu gën a euh, soriwee ba tey nag ci euh, wàllu woowu ki di Serigne Amsatou Mbacké à travers kuréel gi nga xamante ne moom mooy xuddaamul xadim ñoom it nag indi nañu itam seeni tontu daal di koy jëme rek ci kaddu yi nga xamante ne moom le président français bi daal di yëkkati moom nag la mu xamle rek mooy nanguwuñu benn yoon li président français bi daal di wax sax nag ñoom la ñuy proposé askanu Sénégal mooy rek ñu boycotté produit yi nga xamante ne foofu foofu lay jóge ki ko fayluwaat nag ci uh, wax jooju léegi moom mooy xalif uh, Thierno Madani uh, taal moom itam sànni na ay kàddu ci mbir moom daal di wax rek ne kili di Seydina Mohamed moom rek moo nag le prix Nobel de la paix jàmm rek la doon dox ak cofeel gi nga xamante ne nii moom la am ci képp kuy nit bokk na nag ci li mu daanale ay kàddoom moom Thierno Madani Tall mooy rek képp ku tooñ yonent bi di nga tooñ mbooleem jullit sax nag la muy sàkku ci président Macron mooy rek mu génnaat daal di jégalu ndax it nag dafa tooñ bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi mbiri coronavirus fii ci euh, Sénégal mu mel ni rek àllarba tey ñaax fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre kuréel gu ñu dénk wàllu wér gu am ci réewum Sénégal jébbal nañu communiqué 241 bu ñeel wàllu coronavirus mu mel ni rek euh, ci euh, juróom ñaaxi téeméer rek ñaax fukk ak benn test yi nga xamante ne ni moom la amal doon ab taux de positivité de 1,53 pour cent cas positif yooyu nag doon ñetti cas contact benn cas importé ak juróom-ñaari ka euh, communautaire ka communautaire yooyu nag fa ñu ko gis moom moo di Yoff am si ñaar Almadies Dakar Plateau Mbour Sicap Kara karak ak Thiès bu ci nekk itam am si benn ci noonu itam wàññi nañ lu yem ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ay nit yoo xamante ne nii hospitalisé woon nañ leen ñu mujjee leen leen bàyyi ñu dem ndax dañoo amee tan juróom-ñaar ci ay nit ñoom ñoo nekk fële ca Sowétas ni ki démb nag ci talaata bi benn bakkan rotul ci jàngoro yu coronavirus ba fi mbas mi duggee ak léegi wàññi nañ lu tollook fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay nit yoo xamante ne ñoo jotee laale ak jàngoro yi coronavirus ci ñoom nag fukki junni ak ñeent ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay yoo xamante ni amee nañu tan ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan ak nag juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent ci ay nit yoo xamante nii ñu ngi ci loxoy docteur Ngoné Ndour nekk PCA bu SODAV wax nañu rek ci at wi ñu dëgmal la mandaawam di jeex fële ci poste bi nga xamante ne ni moom lañu ko jox te sax nag la mu waat mooy du euh, présenté waat pour am euh, second mandat ndax jamono ji kat elle est euh, yëpp nag tey lu ko waral rek mooy kile di président de la république monsieur Macky Sall dafa jël ndogal rek daal di audité li nga xamante ne nii moom moo di SODAV ginnaaw bi nga xamante ne nii am na ay ñagas-ñagas ci diggante moom ak kile di Youssou Ndour nekk frère ci ki nga xamante ne nii moom moo di Ngone Ndour jiital SODAV boobu nag la mu xamle woon rek mooy rek c'est pas parce que kii la di Youssou Ndour dafa am problème ak président de la République rek ñu war a auditer li nga xamante ne nii moom moo di SODAV. gàmm 2020 fële ca Medinatul Salaam camp yi la di bu Soxna Aida ak Serigne Saliou Thioune mu mel ni rek bu ci nekk déposé nañu ay demande d'autorisation ngir mën a célébrer li nga xamante ne moom mooy gàmm gi fële ca Medinatul Salaam mu mel ni rek ni ki tey le préfet bu Mbour nar daf leen di rek bàyyi ñu def seen manifestation yooyu le Serigne Saliou Thioune nag mu mel ni rek jëloon initiative wala boog jëloon ndogal ne rek dafay célébrer li nga xamante ne nii moom moo di gàmmu gi te nag du cédé benn yoon à la provocation taalibe ki nga xamante ne ñoom ñooy soxna Aïda Diallo ñu ñëw ak yéen nag ak tontonte bi nga xamante ne moom moo am ci diggante kii di Iran Ndaw ak euh, Ndella Madior Diouf euh, mu mel ni rek wax ji mu ngi euh, jëpp ginnaaw bi nga xamante ni kii di oustaz Iran Ndaw laaj nañu ko rek ci kàddu yi nga xamante ne nii moom la Ndella Madior Diouf daal di rek waxoon ne moom bu amee borom kër daanaka rek daf koy soxla lu bari ci gudd gi Iran Ndaw nag la cay xalaatam moom mooy yenn kàddu yi manque éducation la te sax nag la mu saytu léegi yaxatuñu seen doom bay def ci ñoom ak euh, nité moo taxit rek nag ñuy gis ñoo xamante ne ni dañuy euh, toog ci kanamu euh, télé bi di wax rek kàddu yoo xamante ne ni xëy na bu ci borom diine dalee rek daanaka rek dafay changer li nga xamante ne nii euh, moom la doon seetaan. kàddu gi euh, Oustaz Iran Ndao yooyu nag euh, ci la ki la di Ndella Madior Diouf daal rek daal di koy tontu. moom nag daanaka la mu njëkk a xamle rek mooy am na ay oustaz yoo xamante ne ñu nekk fii ci Sénégal te jubuñu ndax it nag bu ñu xooloon ci ki nga xamante ne moom moo di Mame Makhtar Gueye ak félicitation yi nga xamante ne nii moom la jébbaloon ki la di Ndella Madior Diouf. bokk na itam ci li la wax ki nga xamante ne moom mooy Oustaz Iran Ndao mooy rek di ko wax ne ab Euh, Oustaz euh, dafay euh, maalu bokk na itam ci kii di Ndella jox tontu Oustaz Iran te mooy rek kii di Mame Matar Gueye bu Jamra fayoon na wax gi nga xamante ne ni moom la ñu waxaloon kii di Ndella Madior kii di Oustaz nag Oustaz Iran daal di ñëw rek bëgg a xëppaat suuf ci mbir mi waaye nag mu ngi ko yëgal ne du moom mooy xëpp suuf ci kaw waaye moom Ndella mooy rek yàqal ki nga xamante ne ni moom moo di Oustaz Iran. mbokkanteer noti foofu la ñuy jaaree daal leen daal képp xibaar yi ba cër bi cant ak ngërëm ne leen ci ànd bi ngeen ànd ak li sans limite di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf